ñu ngi euh, xaarandi ba tey euh, question yi des ñu tànn ci quelque rek baaxee ko ko bu ko defee mu indi ci euh, ay leeral ay leeral plutôt lépp rek ci topp ak dégg mais yow Saas li nga fiy jot ci ay orange moo ne sànq ba tey ndax dina xaj sa téléphone bi te ngaa joxe sa ma numéro man tamit na bien laa de bëgg naa ko de ajal naa ko de. ajak ni mu méttee. dawal naa ko safaak safaak marwa. <laughs> xanaa xëcc xeer bi xëcc xeer yi rek <laughs> di sànni Vieux Diouf nee na ajal na ko. Corombaar Ndiaye nee na ñu transféré <laughs> nañ transféré Orange yi ci téléphone portable parce que moom mooy responsable émission bi Coro bàyyil boo amee pouvoir di ko won ñi amul pouvoir. message yi ñuy jot. muy ay teranga yu joge ci nit ñi xam nga maa ngi yow bokk émission bi. yow mom bu paré il faut nga jot sa waat. te yow lekkoo dara bàyyi la waaw ma dara bàyyi mi ngi ni ndey san soxla. ba pare man loma jox sax dama koy yóbbu ci ci pumbu pouponnière bi. ci bisu wa ci bisu ñay tab yenen ci bi mo yaat wallahi sayyiduna Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. mom mom rek moo ñu def ni ñu mel. hmm xëyuñu ci ben société. hmm waye lu nu am yenen ci bi la. sallallahu alayhi wa sallam. ci moom la ñuy amee basin yu rafet yi mm-hmm. ci la ñuy amee ci téléphone yu rafet yi mm-hmm. ci la ñu amee lépp mm-hmm. Seydina Muhammad moom rek la ñu àndal nag parce que moom du xewi du xewi du soppeeku mais mais man li ma jaaxal ci moom euh, sëgëm ñun suñu jëmm yu xeebu yi bu ñu nekkee ci àddina pouvoir bu ñu am mën mën koo utiliser ku ñu tooñ sax ñu fayu mais Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ko suñu borom joxoon ci pouvoir musu koo jëfandikoo pour fayantoo wala pour gaañ Pape dafa toog ci jàkka ji di waxtaan ak saxaaba yi benn waay dugg ci jàkka ji. Mhm. romb ko fi mu toog di waxtaan ak saxaaba yi jubali ba ca kanamu minbar bi. Mhm. mooy fi imaam di taxaw. Mhm. tekki tubayam di tuur ndox. non waaw ko xanaa dafa dof <laughs> non dama kat lu tax mu def loolu jumaak ni mu sellee. c'est que autour du juma loo fa def lu àndut ak jaamu yàlla sax def nga yëfi dof waxatuma la ak ci biir ci minbar bi. <laughs> xam nga provocation bu nekk jot na ko. dëgg day jaar ci marché bi di dox ñu naan ko dof baa ngi. Mhm. ku toll ni yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. naan ko majnuun eh eh dof bee. majnuun mooy dof. mooy dof kon de léegi vieux Diouf majnuun laa ko woowee <laughs> majnuun Diouf <laughs> ñu koy tooñ. façon provocation bu nekk Seydina Mouhamed daf koo dund. parce que mission bi mu yoroon. Mhm. il fallait que gars yi defloo ko lu lu ko merloo. Mhm. lu tax mission bi échec. Mhm. moo tax saa yu bëggee mer bu bëgg a teg lenge yi rek. yàlla ni ko eh. wa in yukazzibuka faqad kuzzibat rusulun min qablik. buñ la sabootee bul mer. buñ la xasee bul mer. buñ la sosalee bul mer. parce que ñi la fi jiitu nekkoon ay yeneent dégg nañ lii. mu ne kon non grave am problème jugaat. ñu gën a metti sax. loo dégg rek gaa yi la jiitu dégg nañ ko mhm. mais Pape fi mu toog ci jàkka ji waa ji ñëw tekki tubayam di tuur ndox Seydina Omar jug taxaw bëgg koo attaqué mu ne noo bàyyi ko bàyyi ko mu tuur ndox ba pare ci kanamu jàkka ji waa ji pare yonent bi ne ko kaay ba mu ñëw mu ne ko buniyal masaajidu li salaati laa lil bawli mhm. jàkka dañ koo tabax pour julli mhm. mais du pour tuur ndox su ëllëgee soo bëggee tuur ndox xolal toilette yaa ngi ne le maanaam da ko woo ci pet waxtaan ak moom ci dal imaginil kuy tuur ndox ci jàkka nga ni ko bàyyil li ngay def jàkka du pour tuur ndox pour julli la man dama lay filmer dugal ko TikTok woowaa koñ bi xeex ak yow weer la <laughs> yonent bee dal kii moo dal moo gën a dal ñëpp lu waaye am ci jikko yu rafet rek ci moom la fekk baax dafa dal mhm. mën a supporter mhm. yàlla mi ko bind dem na bay tagg ay jikkoom ci ni mu mënee supporter mu ngi yonent bi mm. yàlla nee na ko billaay yaay gor walaw kunta fazan xaliisal qalbi lan faddu min xawlika soo nekkoon ku gaaw a mer nekk ku gaaw a gis sa bopp nekk ku gaaw a découragé li ma bëgg ci yow doo ko def waaye da ngaa dal dafa wax ak waa ji ci dal waa ji ne tekk ba yonent bi daaneel mu ne ko maa tey ma réew de yow kii réewul maa tey mais incha amul jàmm de après suite bi fu mu lu bon li ndey asafal nan lu bon en bon kon lu bon dal na après parce que yonent bi ànd ak sang froid am rek. mune ne yonent bi maa tay si yonent bi bàyyi ko mu dem. Mhm. mu xëyaat ñëwaat defaat la même chose yonent bi waxaat ak mom ni ko bu ni yal masaajidu li salaati bawli mune ko ma tay yonent bi mu dem. Mhm. troisième jour nag bi mu ñëwaatee def ko yonent bi waxaat ak moom waa ji ne tekk di xool Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ko neexul ba neexul waaye kuy wër gor na la jàpp hmm. yaa dal yaa modeste yaa baax dama doon nattu ndax yonent biñ ñi woon mooy ñëw mu jóg jamono am na dal te moo yor diine ji gën ci diine yi hmm. moom laa doon teste boo nekkoon ku gaaw a bon xol ma xam ne du yow ndax yàlla du yónni ko gaaw a mer ni ko bis ni ki tey tuub naa dugg ci sa diine ashhadu an laa ilaha illa allahu wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ñu ne yonent bi kon ci dalam ci la récupéré waa ji ba l'islam am élément bu dooleeku donc imaginel mu defante woon ak mais imaginel bu jugoon rek mbëkk ko dëgg la de dëgg la de waa ji day xas diine ji dëgg la de waaye dal gi mu àndal alaaji pap moo tax waa ji mujj tuub dugg ci l'islam te lu ne gis na ko moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf daan génn di dem jàkka ja ñu gas ay pax ci buntu këram di fa tuur ay cabinet pour mu pour mu pour mu daanu ci. ay waay yow na baaxuñu woon ah. ah lu nekk def nañ ko ko Pape mais dafa muñ. damm nañ tànkam deret jiy tuur. Hmm. toog nañ ñeent fukki guddi amul dépense ci tàkkul këram. te du jàmbat. yow mi ñàkk ba bëgg a saalit na sa xel dem ci yonent bi. quarante jour la toog cin tàkkul këram amul dépense. un mois 10 jours. Hmm. te yàlla nee na ko ñi am dépense ci sa barke lañ amee dépense. ñi am teraanga ci sa barke lañu ko amee. loo ñàkk mu muñee ko yonent bi. gis nga pap lu la dal ci métit yàlla teg na ko yonent bi pour yow nga tiire ci attention. su dee danga amul doom. yàlla xaj na ko yonent kon nag moom yàlla mooy def ko gën gi mindeef ah. parce que dafa bëgg ñu tiire ci moom leçon. yow mi amul doom di sëy ci kër bu mu la naqari Sayyidatuna Aïcha amul doom. yow mi ñàkk dépense ba bëgg a saalit bul saalit un mois dix jours la toog ci tàkkul këram. suñu borom teg na ko lépp. yow mi am ay nattu am ay feebar moom tëdd na feebar quatorze jours. daan na ñàkk bay woo saxaaba yi di topp këraanoo kër pour wut lu mu lekk. amul lu mu lu mu dajul ci coono. problème yii di am ci kër famille yi am na këram. Mhm. daf daan joteeg ay soxnaam. musul mer. yàlla nee na ko boo nekkoon ku xat xol nekk ku gaaw a mer sa mission du àgg. waaye dafay muñ <coughs> lu ñu ko teg mu muñ ko. Mhm. lu ne mu daj ko ci métit teewul mu muñ ko. Mhm. sabotage bu ne mu dégg ko teewul mu muñ ko. coono bu ne mu daj ko teewul mu muñ ko. yàlla ni def leen ko référence dee leen muñ. pap àdduna ku fi nekk foog ngay muñ mhm. parce que yàlla nee na maag muñkat yi ñoo ànd mhm. sëriñ Abdul Aziz Al Amin mu baax mi daf daan wax ni bu fekkee da bëgg a yéeg ci kaw garab mhm. te saa yu ñu la sànnee xeer nga di danaa wàcc for xeer fayu nee kilay sànni dana tardé waaye yow mi yéegit da nga yéex a àgg waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom dundam yëpp daf koo muñ sabotage yeeg xas yeeg wax yu ñaaw yeeg. ndëgg sërëx yeeg ndëgg sërëx yeeg. mais Pape xam nga bu ñu demee ba kuy njabar pour mu dof. liggéey ko ba mu commencé tàqali koog sa gox. ñu ko doon liggéey. dañ ko liggéey ba mu jàpp. xaaral ci ban ñuy wax labib moo ko liggéey. ah labib amul kenn kuñ ko fi kuñ ko fi tuddee. <laughs> dina mel ni sama yaay sama yaay ju baax waay ajot abi galasloo yaayu tumaani eh, yaayu Nafi Jaañ <laughs> ñu ngi koy nuyu moom daal saa yu demee Touba day xool. ñan ñooy noonu sëriñ Touba ma ko yow di nga sonn ah. billaahi wal kitaab dana sonn pap <laughs> mais Serigne bi def loolu. alaaji pap réew mi ku bañ mag ñi danga nga sonn. ñu njabar ko noonu rek. dañu ko liggéey ku ñuy wax labib moo ko liggéey. Mhm. ci teen lañ ko suul. Mhm. dañ koo sëf. Mhm. sëf yi ñuy def. xam nga réew mi am na ñuy sëfaate. waa sëf am na de. am na ñoo xam ni dañuy sulli bàmmeelu jàmbur suul fa liggéey. am na ñoo xam ni. sa dàll càmmoñ la ñuy wër defal très attention am na ñuy wër sa karaw. Hmm? am na ñoo xam ne yére bi nga xasa sol ñaq ci moom la moo tax yére bi nga sol ku la ko ñaan boo mënee am gàntal gàntalal ku la laaj bu bees nag jëlal jox ko mais yére bi nga xasa ñaq am na ñoo xam ne luñ la ci def dalay jàpp am na ñoo xam ne sa karaw luñ la ci def dañ lay jàpp. am na ñoo say we mais ñooñu est-ce que bu ñu tëddee dinañu nelaw parce que àdduna conscience la. mais pap mbon dafay chronique ci nit nit dana tàmm mbon ba dara dootu ko yëngal ah, am na meeru nekk lu naturel ci moom am na meeru kooba yooyu gis ci dëkk bii li ñu tas ci ay sëy xamoonum toll kooba baraajo ay meeru kooba yoo xam ne li ñu tas ci ay sëyu jàmbur sëriñ bu dul bu jinne ci réew mi am na meer yoo xam ne xoola mhm. pap mhm. ni ministre de la santé amee ministre de la transport ak yooyu am. noonu la ministre ru xarfa xuufa amee ci réew mi. fii Sénégal ay maire yoo xam ni fu sëriñ nekk xam nañu ko. te du ñu seeti sëriñ kat pour lu baax contacter yow <laughs> parce que booy bu garaaw nga mos nga leen a contacter ñoom mair yooyu. <laughs> ñooy ñëw fekk la nga nekk ci sa sëy ci jàmm ak salaam. ñu fexe ba dugg la. ku la laajul conseil soxlawul sa xalaat nga ñëw naan ko maay doon sa yaay. ndax yéen xale yi xamoo leen sëy ñun ba ñuy sëy démb ak barki démb sëy bu ah yéen xamoo leen sëy sëy kenn du ci duggee neen <laughs> danaa la booleeg Pape Cheikh Diallo <laughs> ma nga ca néegam dana la defal loo xam ne sa jëkkër du gis ku dul yow sa goro bii sonal la danaa fexe ba mu ba dëdd ba dëddale kook doom ji ba dootu ko gis mhm. am na pap ci réew mi ñoo xam ni seen yaayu jabar seen yaayu jabar mhm. ñoo leen di liggéey ñoom ku góor ki ba ñu bàyyi seen yaay topp seen yaayu jabar hmm? billaahi wal am na ci réew mi sa doom bu jigéen ki muy sëyal nga liggéey ko ba mu gën laa gëm yaayam ji ko nàmpal mu lay defal loo xam ni bàyyi na yaayam ji ko jur di la ko defal yow bari na ci réew mi dañuy dem ba récupérer doom ju góor ji mu doon seen doom seen famille lay defal ñoom lay defal yaay ji juróon moom nàmpal da ay coono dootu am benn bànneex doon doomu kër gi doon doomu kër gi lii am ci réew mi loolu dafa neex de dugg si sa kër goro ak accueillir la <laughs> gëj na ko dund lii yaay wax lu neex oustaz <laughs> Pape Sénégal ku ko mënoon ba mën ndox sax boo koy naan biteel bi kenn dajjeegul ngay naan dara wuuratul ci réew mi boo gaaree sa oto ñi ngi sotti ay saafara. dëgg la de ngay dox ñuy tibb say tànk. Mm-hmm. ngay liggéey si di dugg ci sa bureau. looloo metti di fa fekk ay gàllaaj. ay nen dëgg la de. nen lu muy wut ci bureau Pape. mës nañu fiy déjjati fii benn plateau boo xam ne bañ ko yëkkatee <laughs> ay baaraam baaraami nit sax fekk nañ ko fa barki borom Touba fii ci kër gi. segam nag yonent bi lañ bàyyiwul woon ci ay pexe. <laughs> du ñu bàyyi doomu aadama ku yebu bañ a bàyyi sa bopp. <laughs> di ñaan muslu. billaahi billaahi. mboolem ruq boobu mais quand même après comme deuk bi légui dafa doy war am nga droit dem wuti serigne bu dafa la ay ñaan pour nga moytandiku pour nga moytandiku def-def yi. pap ay protection quoi protection mënul ñak ku fi wutul protection sa bakana ngi ci xott. Mhm. protection mënul ñàkk Sénégal gi bo béré ñu bëre daanu ci sa kaw boo bëriwul ñu bëre daanu ci sa kaw mm-hmm. fii Sénégal la dafa am ay réalité am lu fi mag ñi bàyyi woon mm-hmm. mag ñi dañu amoon xam-xam bu ñu tuddee baatin mm-hmm. saa yu problème naree am ñu dugg jëfandikoo baatin problème ba saafaroo baatin dafa am ci réew mi dégg naa tamit xol bu rafet mën na aar def-def bu dee am nga xol bu rafet mais innamal a'malu binniyaati jëf yëpp a ngi ci yéene parce que yàlla itam des fois on a l'impression que dafa mën a seetaan mais pap loo ni du ko seetaan na lu ko raw Serigne Cheikh Tidiane si nee na bu doon am sant njuy lay sant njuy. waaw lu tax muy seetaan moom tamit te war ñoo jàppale ñun ñëpp. parce xam na ni sàcc bu dul raw jarte yàqi nelaw. te xam na ni ëllëg dana toog ak ñëpp. Mhm. kenn du ko rëcc. mais day yàgg loolu. mais foofu la dàqee pap koo xam ni bu wéeteeg yow ëllëg loo mas a def nit ci lu bon da ko régler sa digganteeg moom kon yàlla dafa gëm ni yàgg bawul dara mais yàgg ba bawul dara moo ko wax minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra mm. nee na ci man ngeen jóge mm-hmm. ci man ngeen di dellu si maa leen di régler kenn par kenn mm-hmm. lu waay mas a def ci àdduna ak ruq boo ko mën a defee da nga wéet ak yàlla yàlla régler la mm-hmm. keroog bi nga toogee ak sëriñ bi ne ko diw laa bëgg nga tasal ma sëyam bi mm. damaa bëgg nga dëddaleel ma ñaar ñii mm-hmm. bu nu bëgganteeti mm-hmm. damaa bëgg diw société ba muy liggéeyee nañ ko mm-hmm. dàq damaa bëgg diw fay am na dañuy fay nit nga toll fenn fi nit ñi bëgg la ñu jékki-jékki fay la kenn dootu la xool nit yem ci yow ci télé bi la ah, te moo la daan jàpp dégg dañ lay fay ah. am na ay secret ci alquran ay kullama awqadu naaran lil harbi ay secret yu garaw loolu lan moo ko jar oustaz dafa am ci réew mi ñaar ñuy sëy pap xolal nga fexe ba tàqale leen. mais yow ñi dañoo réew de tàqale ay nit fay ay nit toroxal ay nit sànni kortu nit gàllankoor nit juste pour ton plaisir wala sa sa sa yokkute àddina. wut ay barrage comme ñoom. ki taxaw pour yàqal la pour échec loola pour yem loola fi mu bëgg nga yem fa. Mhm. lu mu ko jaral pour mu yàqal la ko na la ko jaral pour nga réussir. ni mu amee ay yàqu-yàqu noonu la amee ay defar-defar. dëgg la foo yaakaar nit ku baax mag mu sell. Mhm. jëlal péage bii pap yenn saa yi di laal plein essence. Mhm. boo dawee ba mu yàgg nga wàcc tali bi. Mhm. jël rang bi. dugg fekk fa mag mu yàgg wéet ak yàlla nga tàllal say loxo mu ñaanal la wala mu bindal la ci alquran jox la nga jàll ca gannaaw sàkket ga sangu sol say yére génn ñibbi imaam fay sama papa ca reefaan dem na ndeysaan yàlla na yàlla yokku leeram daan naa xëy dimanche rek dem reefaan toog daan naa ràññee fajaru reefaat 5 heures du matin ba 3 heures la ba fay di. ba sa ngay baax de 6 heures du matin ci fay. booy àgg day fekk kër gi ñuy. yàlla yàlla kenn yeewoogul pour uh-huh, ndékki. Uh-huh. balaa waa kër gee yeewu bay ndékki sa ngoonga 40 bitel yow ba génn ñibbi. dëgg la de. <laughs> fii la ci réew mi senegal la ne. <laughs> xale yi dañuy mël foofu dimanche. la <laughs> ñoom jatulee dañuy mël foofu dimanche. yàlla na ñu yàlla sàmm ñaan mooy ngànnaayu jullit yàlla na ñu yàlla sàmm loolu la yonent bi waxoon addu'a silahul mu'min mm-hmm. ñaan mooy ngànnaayu jullit mm-hmm. jullit dafay gëm ni ñaan dafa am